jërë ngeen jëf lu tëgg tas tës tës gu rëy gi gaañi nekk woon ci campagne électorale bi léegi tey mu jeex ñu dem ci journal libération xooli fa aw tiis wu neexut a nettali benn waay bu ñu naan Mamadou Diallo moo tiim cousinam bu tolloon ci ñaari at ne ko deqet rendi moom waa ji nag di Mamadou Diallo bi ñu ko laajee waat na wàcc ne ba mu doon rendi ak lëg la doon rendi libération nañu tribunal bu Ziguinchor àtte na ko démb ba tëj ko kaso ngiiru dundam mbaa yéen a nga na Papito Kara ndaw li nga xam ne moo doon soppi Unique Quotidien di ko revue de presse arrêté nañ ko ba noppi fëggoo ko garde à vue libération ne benn waaye bu ñu naan Mamadou Diallo boo sàgganee nag li des ci giru dëndam ci kase la koy def ndaxte waa ji bu am ñaari at la reen di xateet te di nee na da ko ba dikkati naa yéen kaay bi ne ma jàpp daal koy reen di Mamadou bañ ko laajee dafa ne daf ko jaawale woon ak njombar yéen kaay bi ne ma teloo ci xamul njombe gii day tuxu mbokkum yàmbaa moo ko ko yóbbee ak lu mën a am mbokk yi nañu yendoog jàmm te di ñaan jàmm